suñuy jaar jaar daal dañu seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na ko station bi ñu tàmbal nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. wa man istanna bi sunnatihi wa hada bi hadihi ila yawmi din wa radiallahu an ashabihi وعن تابعين وتابعي تابعين لهم وعن خادمه وخادم خادمه رضوان الله عليهم أجمعين نبارك لو بيتو إمام شافعي بموخون إن لله عبادا فطنا تلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليس للحي سكنا jaaluha lujjatan wattaqasu saalihal amali fiha na alhamdulilah euh, thème bi nga joxe yaakaar naa ndax ñun am nañ beneen thème ñun yaakaar naa boobu rek lañu am benn thème rek lañu am mooy Cheikh Moussa li woote maa ngi koy wax sànq ci néeg bi ne luy tegtal xut bu zamaan ñu koy faral di wax muy baat bu ñuy jëfandikoo te sax bu ñuy niitu ci euh, shariatu maanaam ngay dem ci alquran wala ci sunna doo gis lu la layal wala boog néew na nga gis lu la layal baatu xut bu zamaan waaye baat la boo xam ne ulamaawu xikama yi nangu nañu ko waaye ci xel mu rafet rek ak nit kuy xalaat ñaari mbir rek boo ci xoolee xool ko ci Cheikh Moussa xool ko ci jamono rek dañ lay bàyyi nga liggéey sa xel euh, benn bi mooy ci Zahir moo fi nekkoon baykat boo xam ne xeeti jardin yi muy xeeti lujum yi moo fi nekkoon baykat boo xam ne ci année ay 83 jëm 94 moo ko fi daan bay fii presque ci tundu Saalum moo fi nekkoon yarkat boo xam ne da daan yar ay ganaar yi nga xam ne mooy ganaaru élevage yi ci année yooyu ma doon wax booba ñu bari xamuñu waaye boo xoolee tey ci jamono ndax jamono jogut jublu foofa yéen lay laaj jamono jublu na foofu wala jubluwu kon ci jamono yàlla moom moom jamono Cheikh Moussa indiw fi jamono ndax dem na ba ko fi waaye liy tegtal nit ne kii boroom jamono la. benn ngoog ñaareel bi mooy lim daan wax ci année yooyu li jiitu année 83 ba 94 ci dundam lim daan faral di waxee diggante taalibe ak sëriñ boo toppee nit ki lim war a def ci yow ki nga topp ni nga ko war a toppee lim wax a war a wax ak yow lim war a def ak yow. jamono bobu mom dongu lañ doon wax ne moy contour Serigne ñu tégal ko ci sax day kontur Serigne tu baax mané ndax du lolu tay moy kaddu jamono am déet yeen xam ngeen ci dara xali ne ci net bi kay limay wax ni xam ngeen ci dara est-ce que du li moy waxu jamono diggante Serigne ak talibé am kon ñaar yi bu ngeen ko xolé ci sayr rek dana leen tektal kan moy Cheikh Moussa. bu ngeen xoolee liggéeyee seen xel parce que nit tam xikma da koy dimbale boobaa danga xam ndax kii am na lu ko yàlla sédd ci jamono bi moom yàlla wala séddut ko ci dara damay wax nag ne su ngeen xasee tànt yéen ñi tànt taxatu leen yaa may dégg ku ci tàntati bu bàyyil xel ne yow mi tànt moomoo tànt ba duñ fa wax li nga bëgguñu wax dañuy wax la yeeyoo ak tànt ba li kulli maqaalin mawdi gis nga bu ñu wootee ngénte bu kenn waxtaan ci céet dañ waxtaanee ngénte ga rek wa place bu ne dafa am lu ñu fa war a wax defe naa tubaab boo ko génnee hors sujet la koy wax am déet waaw mos dañ ko laal tuuti ca alliance ba kon man ci li may wax damay gàttal rek wala du noonu yaakaar naa conférencier bi wax na ba pare ngeen baal ma xam nga boo miinee jàngale taxaw danga koy bëgg waaye man li may wax tuuti la rek dama koy tënk fii nag dara waru fee tuuti lépp war a rëy waaye ñu ngi nuyu sang yi toog fii di nuyu kilifa yi dëkk bi yépp di leen ziara di nuyu suñuy nijaay yi fi nekk di leen ziara ñoom ñëpp di ñaan yàlla ñaar ñi daan toog ak ñun ci jataay bii te yàlla dogalu ko ren muy Seydi Yanquba Seydi Mahmoud Bousso ñu ngi lay ñaanal yàlla leeral seen kanam barkeel seen ginnaaw baatu tawxiid yi ñu doon dégg fii yal na leen sowe bi jaay rasulil karim wa bi jaay xaadim wa bi jaay Cheikh Moussa ndax suñuy soppe lañu woon yoo xam ne jataay bii daanuñ ko daanuñ ko fàddu saa yu leen fekkaan ci dëkk bi rek dinañ teew mooy bu so Mamoud ba bu so kon fa ñu nekk yal na yàlla woyofal suuf seen kaw te yàlla leeral seen kanam bi jaay rasulil karim tàbbal leen ajjanaam yàlla mën na ko yàlla na ko def waaye yéen seen kàddu wala ñuun mooy rek nag ñu sax ci li Cheikh Moussa xam le gis nga lislaam fekk na fi xam-xam bu ne damay def loo toujours suñu xale yi attention ci jamono gis nga jamono bii dégg ngeen fi ku woote lu nekk am déet jamono bii ku bëgg a woote bu la neexee woote ku bëgg a wax bu la neexee wax kum neex tey nga ne may xutbu samaan bi kum neex tey nga ne may wali bu mag bi kum neex nga ne may président kum neex lu la neex mën nga wax waaye li ngay wax dafay wu dafay da doy wuute ak li yàlla def motax nitu yàlla yi duñ wax lu yàlla deful lol motax ñuy wax ka tu deug parce que yàlla xuwal xaq moo tax balaa ngay wax da ngay set li ngay wax ba xam luñu waré wax la wala déet l'islam lenn rek moko taxa jóg moy tekkale nit ki ak bokale yàlla tabal ci xolu nit ki tawhid lolou moy al aslu fil islam hadmu shirk wa isaba wa isabatul tawhid faqat saxal ci xol bi tawhid génne ci shirk lii mooy cosaanu lislaam yonent bi woote ko 13 ans chariatu doog a ñëw loolu la nitu yàlla yi dellu di delloo nit ñi ci 13 ans yooyu ci li ñuy delloo nit ñi après 13 ans yi ñëpp xam nañ ko mu ngi ci téere yi jàng nañ ko waaye avant 13 ans yi mooy indi sëriñ ak diir boobu ñi fi jaaroon ñëpp wax naa ko waxaat ko daanuñ julli daanuñ woor daanuñ génne mbay mi asaka daanuñ aj màkka ndax dara wàccegu ci woon am na ku ma mos wax ne ma waaw booy tabax néeg te néeg bi pareegul fu la neex ngay jaar ma ne ko waaw mu ne ma su xaajee fu la neex ngay jaar ma ne ko waaw mu ne ma su raasee bunt ba rek te nga mën a jaar ma ne ko ndax yàlla noonu lay tabaxee ndax yàlla noonu lay tabaxe mu ne teg kon mu doon ku tële ñun bu ñuy tabax ñuy def par étape dañoo tële rek ah waaye nit ki doo ko yónni mu dem ba ca bitig ba nga door a jël xaalis ba nga koy wax mu jëndalee la café nga nga nga fekk ko ko foofu di ko ko joxaat noonu la ñuy yónnee da nga ko naan demal jëndali ma kafe xaar ba mu yegg ci bitig ba nga jël xaalis bi fekk ko fa ne ko am jëndee ko café noonu la ñuy yónnee loolu la bëgg a wax noonu la yàlla yónnee yónnentam bi alayhi salaam bokkut ak noonu ci lay ni daf lay joxaale xaalis bi na la demal jëndal ma nangam nga yóbbuwaale ko kon rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ni ko euh, suñu rakk ji waxee mooy ki gën ci yonent yi li mu gënee dañ koo gis fukki yahood yi ëpp xam-xam ci àdduna yëpp saxal nañ ne muhammad moo fi ëpp xam-xam moo fi ëpp xikma moo fi gën jikko fukki yahood yi ëpp xam-xam ci àdduna bi ak lu yahood di añaan añaan saxal nañ loolu kon mom bi mi ñew yalla desalu dara lo xamne da nan damay xaar bam yegg déedéet jox na ko indi xam nga bu fekk dafa am pertement day am parce que sahaba yi sun yaay khadija kan mo la meuna wax ci téré fuñ ko jullee Suhayb ak famim fan lañ leen jullee biñ faato ñoñu boba julli farata waccagul waxuma la ak julli far julli fardu kifaya kon ñooñu ñëpp génn nañ àdduna ci saxaaba yi ñu bari kenn julleewu leen te kenn ñemewul wax nañ ñu nga fudul ajana gis nga saxaaba yooyu fi ñu taxawoon fi ñu taxawoon te chariatu ñëwagul loolu la nitu yàlla yi di souligner Cheikh Tidiane Sarif loola doon xamle Cheikh Abdou Khadir Jeylaan moom la doon xamle ibaa Abal Hasan moom la doon xamle seen Muxtaar Kunti yi moom la doon xamle benn la kenn la muy yàlla du ñaar comme li kiy wax léegi moo tax saa yu ca weerante amee rek am na ku xamul lim wax léegi mooy dëgg tarixa yoon la taxul jot kenn ku nite ku koy puugure woo romb leen ko te bu leen weranteeg moom parce que werante dafay tardeel ku bëgg lu baax li am solo mooy egg te su ngeen eggee sax leen ci taw tawhid ku saxul ci tawhid da ngeen ko raw da ngeen ko ëpp barke te it da ngeen ko ëpp ngërmande yàlla xam-xam bari na wax naa ko ne leen nit ñi mën nañu woote lu nekk waaye tawhid moom manqué gis nga da ngay dégg kuy woote nga déglu waxam muy woote ci yàlla di dëgëral boppam ci yàlla ne moom moom jamono bi ci yàlla di wax lu ne ci yàlla ci biir waxam rek lay bokkaale yàlla moom ci biir waxam lay daanoo su fekkee yaa ngi jëfandikoo lislaam di déglu bu baax ci biir waxam lay daanoo waa yonent bi alayhi salaatu wasalaam tawhidul ilahiya la woote gis nga maarifatu billaahi bokkul ak tawxiid man nga fees dell ci maarifa te te boo feesee dell ci maarifa te amoo tawxiid soriwula iblis parce que iblis nekkoon na taajul aarifiina jiitu woon na aarifiini yépp moom iblis xanaa xamoon ne iblis yàlla dugalu ko sawara ci euh, bokkaale yàlla lu tax yàlla dugal ko safara demal ci alxuraan li tax yàlla dugal ko safara wa isxaar rabbuka lil malaayikati usjudoo li aadama fa sajadoo illa iblis aba loolu rek a tax yàlla dugal ko safara waaw aadamaa ngi dem leen nangul ko mu lànk ne ko man du ma nangul aadama waaye boo xoolee ca alxuraan ba mu jeex fu iblis di wax ak yàlla rab yow la koy wax yow sama borom kooku mu ngi koy bokkaale yàlla dimbali ma yàlla may ma yàlla dimbali ma loolu rek la iblis da wax ak yàlla ci alxuraan ba mu jeex kon iblis du bokkaale yàlla ci la ko yàlla duma waaye ci bañ topp ndigalu yàlla ci la ko yàlla duma kon mbir mi taw tawxiid rek la lu leen waaye ma ne jaay jaay leen ko taw tawxiid mooy indi xol bu sell tawxiid mooy indi xel mu dal tawxiid mooy indi sago tawxiid mooy indi jàmm tawxiid mooy tax nga nekk jullit piir tawxiid su manqué loo am ci xam-xam am na waa ju ko am te du jullit loo mën a def ci xam-xam am na ku ko mën a def ci xam-xam te du jullit kon luy solo si mooy tawxiid bi Cheikh Moussa woote soo ko xasee am nag xam-xam bu ñëwati attan nga ko mënul laa yàqal dara ndax yaa ngi yor tawxiid waaye boo ko amul jarul wuti benn xam-xam boo am duma cay tegee Rasuul laay fekkoon na fi xam-xam bu nekk te it fekk na fi woote bu nekk jamonoom am nañu woote Musaylimatu Kasaab woote kan la woon ku ko rey Wahshi yu mi reyoon Hamza moo ko rey kuñ doon wax xujjaaj woote woon na gannaawam ñaat téeméer at ak nangam ku ñu wax xomturi yi woote na taxaw ci digg makka taxaw ci digg makka rey fa lu ëpp fanweeri junne yi nit jullit ba pare taxaw ca kaw kaaba ga ca ajurul aswat jëlee fa ajurul aswat yóbbu ko baxray ni ñaar fukki at ak nangam ñu door ko faa jëleewaat indi ko makka te lam doon woote mooy ak rubobiya. fan la mujj ñi ko xam sax bariwul qurmuti yi lañ ko doon wax waaye kon li am solo mooy li Cheikh Moussa woote loolu la góor yàlla yi yëpp woote woon loolu la yonent yi yëpp woote woon loolu mooy islam loolu mooy islam parce que yonent bi abdoulaye ibn Salaam daf ko mos a laaj yonent yi lan lañ bokk mu ne ko lenn mu ne ko lan la mu ne ko islam mu ne ko islam ñaata la mu ne ko benn lu alquran wax inna hasa la fi suhufi ula suhufi ibrahima loolu lan la est-ce que Ibrahima amoon na chariatu Ibrahima est que amoon na nii ngay jàppeek nii ngay julli est-ce que yonent yi passé amoon nañ chariatu ñenn ñu nekk àtte tuuti lañ ci amoon kon bu yàlla ne lii nga yor yow Muhammad moo nekkoon ca yu njëkk ya téere yu njëkk ya nekk ci téere Ibrahima ak Moussa tawhid la loolu mooy islaam moo tax borom bi ne inna diina inda islaam bot bi may fay man yàlla mooy islaam islaam mooy lan mooy yoonu Serigne Touba loolu laa bëgg a leeral manta delloo microphone bi islaam mooy jël sa bopp jox sa borom loolu mooy jébbalu ci yoonu murit loolu mooy tarixa murit tarixa murit ak li yonent bi doon def benn seconde jaaru ci benn cers jaaru ci lan mooy tarixa murit amul lenn loo xam ne am na ci lu dul ñëw daa di ne aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin lan la yàlla wax ci alquran shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist gis nga ko mboolem ñi màndu lii lañ seede mooy lan yàlla kenn la borom xam-xam yi loolu lañ seede malaaka yi loolu lañ seede ba pare yem ci kenn ak yàlla kooku mooy lislaam borom bi ne wa ma xtalafa alladina uutul kitaaba min baadi il وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بخيا بينهم يلا yàlla ñi ñëw ci gannaaw yonent yooyu li waral seen wuuti bi mooy téere yi xataa ñun xataa ñun suñu wuuti bu bari yëpp téere yi la diwa ko wax ci téere sàngam diwa ko wax ci téere sàngam te yow setantaloo ki ko wax ndax kuñ war a déglu laam déet ndax ki ko wax kuñ war a roy laam déet ndax ki ko wax kuñ war a nettali waxam la la wala déet danaa tudd nag du ñàkk ndax dafa am waaju bind ci téere senegal fii téere boo xam ne bu bon ci ëhlu suuf yi la bon ci ëhlu tarixa ku ko mën a télécharge na nga ko télécharge ku dégg araab nga xool ko ci net bi muy docteur Ahmad Lo bi mu ko bindee ba pare ba dem Arabie Saoudi dañ ko boole ci seen borom xam-xam yu mag yi dafa àgg rek ñu jox ko grade boobu ca université bu a wara téere ba def ci bind mbind wax ci wax ju bon ci ëllu suufi yu nee na ëllu tasawuf ngeen déglu ma <coughs> ñoom ñëpp ñoo yem nu ñuy doxalee nee na bàyyi day takk doom. doom day seeyal mag rakk day seeyal mag mag day seeyal rakk loolu da ku caa bind am nañu woo ko wax mu ngi koy weddi man gis naa ko ci téeréem ba moo ko bind est-ce que loolu dëgg la waa kooku ndax nit jar na nga toog naan docteur Ahmad Lo wax na nangam kooku mànduwul nit bu màndoo day bind lim xam booy bind bindal li nga xam te yem ca waaye li mu bind noonu amul ci suuf yu amu ci ku fi mos a gis loolu ku ko fi mos a gis te moo ko bind te yu garab yu mel ni loolu ci mbon mu ngi ko fa bind ci téereem boobu taqdiisul asxaas na ngeen ko fexe te la sar ngeen gëstu ko parce que kuy dox ci tasawuf war ngaa xam noonu tasawuf yi ma ñëwaat ci lislaam boobu borom bi moo wax ne wa man yakfur bi fa inna allaha sariul xisaab yàlla ne baat boobu ma soxla bëgg gi ma bëgg ngeen jox ma seen bopp nit ki ma ko jox moo doon kan rasulullahi alayhi salaam gannaaw yonent yi moo doon kan saxaaba yi ridwanullahi alayhim kan moo ko tasaare ba mu agsi ci ñun mooy aliyu ibnu ibnu abi demal ci téere bu ñu wax nuurul ab da danga fekk sët ba di wéy di wéy naa xam-xam bii ma maa ngi ko jëlee ci suma maam Xoseyn mu jëlee ko ci Xasan mu jëlee ko ci Ali xam-xam bi su ma ko waxoon dinañ ma rey sëtu Ali ibn Abi Talibin moo bind lii moo woy lii may wax mu ne inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay laa yara daka soo jëhlin fa yuftiruna وقد تقدم في هذا أبو الحسن إلى حسين ووصى قبله حسن يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوسنا ولقد سحل رجال صالحون دمي يرون أخبح ما يأتوا به حسنا نقم قم بما يرمن محمد الباخر نك Mouhamadul علي بن sëtu Ali ibn Abi Talibin di doom ci Xuseyn di sët ci Xuseyn nee na suma mu ne xam-xamu or la xam-xamu wurus la maa ngi ko jële ci suma maam mu donnee ko ci maamam kooku donnee ko ci Aliyu yonent bi waxoon ne Aliyu mooy buntu xam-xam yonent bi ne Aliyu mooy buntu xam-xam man may néeg bi waaye lii kay doy na misaal ci ne xam-xam bii ñuy waxee du lu si Ahmad Bamba sos sëñ Muxtaar Kunti yi soxsu ko Abdou Xaadir Jeylaan sosu ko Cheikh Tidiane Sarif sosu ko ñoom it kenn indiwu ko fi kenn ku ci nekk la ilaha illallah moom nga téye xam secret ba ndax Cheikh Tidiane Sarif am na fanweeri sëriñ ak ñett laata muy dajeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ci mujj nekk Cheikh Ahmad Samad Cheikh Cheikh Ahmad Cheikh Abdou Samad moo ko jox wér da xalwóoti yi mu dem aji makka nekk madina teetar kooko ne ko dañ maa tere ma gisante kenn ndax wér de wii Cheikh Abdou Sama ah, Samad jox ma muy bindanteek moom leetar fa màkk lañ doon bindante ñoo ko xam waaye foofu ci màkk la toogee ne yonent bee ko feeñe ne ko da kulla cheikhin ana cheikhu mu rabbika mu raqiik bàyyil bépp sëriñ yow Cheikh Tidiane man maay sa sëriñ maa lay yar maa lay yéegal ci yàlla gannaaw bu Cheikh Tidiane Cherif radiallahu anhu jànge ba pare làq juróom-benn fukki at Cheikh Tidiane bi muy wax lii juróom-benn fukki at yi mat na mu jàng ba pare gàddu saagam ngi di wër sëriñ moo tax sëriñ sa bëri bu fekkoon sëriñ bu njëkk ba ca la du am fanweer ak ñett bu fekkoon lam doon wut a amoon na ko ca ku njëkk ka du am fanweer ak ñett waaye kum ci dem nga yëkkati say mbóot jox ko mu denc ci saagam te continuer xam ne yàlla lay wut ñu koy jox ay tur moo tax tariixi tijaana fi ëpp tur waaye tur yooyu du ko de bu leen foog ne moom la seex doon wut de du yooyu tur wu ne nga ca nag waaye du yooyu seex tijaan lenn rek la doon wut mooy xam yàlla xàgg ci yàlla moo tax tur wuñ ko jox fanweeri sëriñ ak ñett kenn ku ne jox la ay sekkireem gannaaw ba la gërëmee ñaata sekkire bare na de mooy tur yi ne ci yoonu Tijaan amul sirru bu ci nekkut ci wàllu asma waaye du loolu la Seex Tijaan doon seet fan la mujj yonent bi ne ko da kulla cheikhin ana cheikhu murabbika wa muraqika maa lay yar maa lay yéegee ci yàlla loolu mooy lan yar ak yéegee mooy lan nañ ko jàngat moo ko wax de yar ak yéegee mooy lan est-ce que mooy jàngale yar koo tëqoot nit bu ngeen tëqoowut mënoo koo yar diw diwa koy yar da ko fekk këram waaye diw diwa koy yar yaa ngi fii ma nga fële yaroo ko moo tax tey yar amatul tarbiyu sikar tarbiyu moo siiw waaye sikar moo am diw day tarbiyu neel diw day sikar rek da ngay sikar ba sëriñ bi gindi la waaye du la yar parce que doo fa nekk moo tax tey nga gis taalibe yi mel niñ mel lu leen neex wax lu leen neex def parce que ñu bari yaruñ leen dañoo sikkar rek taalibe bu mën a doon nag moo xam tijaan bala moo xam murit bala moo xam xaadir bala taalibe yu bari yaruñ leen dañu loo sikkar bañ gindi leen moo tax xamuñu yoonu sax tarbiya xamuñu sax yoonu adab moo tax lu mat a bàyyi xel la yonent bi wax ku ko lu mu bàyyi sëriñ sa yëpp yonent bi nekk sangam def ci moom xam-xam mu bàyyi ko Madina ñibbisi Algérie est que xam ngeen ne Cheikh Tidiane Algérie la dëkkoon Jasaayir mu ñibbi si di woote ñu génnee ko ne du fii li ngay wax bokkut ak li nga daan wax li ngay wax fii bokkut ak li borom xam-xam yi di wax li ngay wax ñun xamuñ ko dégguñ ko Cheikh noppi mbaa génn Cheikh Tidiane du noppi ñu génnee ko Jasaayir dañ ko génnee Jasaayir mu daw dem Maroc dëkkul Maroc de te mooy dégg xam-xam bii. jibeen ko fi wax léegi bari na ku tax ñu génnee ko kër baayam bari na ku tax ñu nangu soxnaam bari na ku tax ñu xañ ko liggéeyam waaye ku leen ko xañ lam yor yàllaa ko moom dana ko nangu du ngeen ci doo dara lam yor yàllaa ko ko dénk dana ko nangu te du ngeen ci doo dara Cheikh Tidiane dem Faas dem Madina dem Faas nekk Zahraal bi ndax Faas dafa bokkoon ci dëkk yi gën a wéet ci jamono booba ku ñu wax Aliyu xaraasim rek la amoon ci taalibe aliyu xaraasim moo bind jawaahir téere boobu cheikh bindul benn téere cheikh Tidiane bindul benn téere aliyu xaraasim moo bind téere bi demal ca jawhar ba nga xool ko kooku ñëwutoon pour di bind ay téere ñëwutoon pour di jàngale dafa ñëwoon pour xamle yàlla xamal la yàlla nga jaamu yàlla soo dee dem ajjana mais yàlla balaa am la koy jox nga doon ci kilifa faw mu nattu la moo tax yàlla tegoon ko natt yooya kon mboolem ku ko topp xam-xam bii tey Cheikh Moussa di woote moom la Ibra Niass mii doon woote barki Dembo Ndiaye Cheikh mat Bamba moom la doon woote fii Sëñ Muxtaar Kunti moom la doon woote ñoom ñëpp yàlla la xamoon doon xam la yàlla du leneen ku ko teg leneen yaa ko teg waaye bu yàggee ngeen xam ne yàlla la am na loo xam ne yàlla rek ko mën Cheikh dund na ba bàyyi ko fi amul fii taalibe loolu lu dul paatam mi xam-xam bi fi mu yegg cee ci àdduna waxuma ci senegal ci àdduna ci àdduna fi mu fi toll Cheikh Moussa fekkee wut xàgg gi ci saayir gis nga ñu tombe woon ak moom ñëpp tey liggéeyal seen bopp kenn ku ne balaa ngaa faatu fexe nga tabaxal sa doom tabaxal say jabar def nangam def nangam dogo dem Cheikh Moussa doomam yi doon luñ ko benn kër doon luñ benn dërëm xoolal wooteem bi fi mu yegg tey foo dem ñu ne se ñu ne Cheikh Moussa foo dem ñu ne Cheikh Moussa loolu mooy xooteel yàlla da nga koy xooteel bàyyee ko fi yàlla continué xoote bi parce que yàllaa ko moom. boo xootelee ku dul yàlla nag bi ngay dund boo tëlee rek affaire ba taxaw gis ngeen ko ci réew mi diw ak daan bëri nit oto ya fa daan waaye fi mu ne kenn dematul boppam la doon xooteel. waaye kii xooteel yàlla danga fi ne ba bàyyee koo fi xoote bi di wéy ndax yàlla mi ngi ko doon xooteel di fi jóg. te yonent bi ne na yàlla su gërëmee jullit bi dafay woowaa kaw asamaan woowaa suuf yëpp malaaka yi leen diw gërëm naa ko gërëm leen ko diw gërëm naa ko jàppale leen ko saa Moussa dem na waaye malaakay kaw malaakay suuf jinne yi ñu ngi koy dimbale te ñu ëpp doole nit ñi moo tax taalibe li may wax taalibe yi xam nañ ci dara danay nekk barab ci xat-xat yàlla dimbale leen fa ci barkeb Cheikh Moussa mu jaaxal leen sax lu waral loola du Cheikh Moussa moo ñëw de moom mu nga mu nga fam ne ma nga fam ne ci jàmm ja ko yàlla dig ci baatu laa ilaha ndax yàlla du changé te noon na baat bi ku mujj ci yow àjjana mooy sa kër kon Cheikh Moussa mu nga àjjana waaye nag malaaka yi nga xam ne yàlla moo leen fi teg te duñ fi jot ci kàttanu borom bi foo tollu foo toll ñoo lay dimbale loolu la yàlla dogal fàttewuma de fi mënoon fa laa jëm mooy lan mooy yoonu Serigne Touba borom bi daf ko fa in xaajuuka fa qul aslamtu wajhiya lillah déglu leen de fa qul aslamtu wajhiya lillah yàlla ne su ma diina ji mooy islam buñ ci weerantee yow baleen fa jëlal sa bopp jox sa borom loolu mooy jébbalu waaye jébbalu du ni ñu koy waxee rek jox naa la sama bopp xëdd naka àllaaxira déedéet du jébbalu ci yoonu sëñ Touba de jébbalu ci yoonu sëñ Touba mooy baat bii ngay wax aslamtu wajhiya lillahi wala aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin lii mooy jébbalu du leneen ñee la saxal ci wax laa ilaha illallah soo jullee ba pare defal subhanallah ñaar fukk juróom walhamdulilah ñaar fukk ak juróom wala ilaha illa ñaar fukk ak juróom wallahu akbar ñaar fukk ak juróom soo jullee ba pare la Cheikh Moussa daan wax ndax kooku tere na julli gaa yi di ko critiquer ñu ne loolu amul ci sunna bañ a am alawa yaa gàtt rek demal ci xun ya soo demee ci xun ya Abdou Khadir Jeylaani ko bind te moo jiitu Cheikh Moussa moom ñaar fukk ak juróom la wax tasab demal ci tanzim muxararul barnaamijil hajji fil makkatal mukarram màkka bind nañ téere boo xam ne dañ ko teg dañ ko firee téere boo xam ne dafay wax ci wàllu aj ji boo fa demee danga fekk ñu bindee ko nii ne soo jullee ba pare bu la neexee def subhaanallaahi fanweer ak ñett wala alhamdulillaahi fanweer ak ñett wala akbar fanweer ak ñett laa ilaaha illaa benn yoon bu la neexee subhaanallaahi ñaar fukk ak juróom wala alhamdulillaahi ñaar fukk ak juróom wala laa ñaar fukk ak juróom wala akbar ñaar fukk ak juróom bind nañ indi nañ ca ñeenti façon defin màkk gi gaay gi ñëpp gi gaay yaakaar waaw ndax ñun yàlla lañ yaakaar yónnantam bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñoom bind nañ lii kon kay Cheikh Moussa lim joxe donte ba mu koy joxe jàng ko kooku war ngay xam ne ànd ak ci ànd ak yàlla dongu ci la ci ci la ko amee. kon lii mooy jébbalu boo paree mu jox la lii ne la saxal ci lii Cheikh Moussa joxul benn taalibe lu mooy ak li ma leen wax nii. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar ba pare nag continuer nag yow di la jox makaarimul axlaaq ci definam ak waxinam definam ak waxinam kon jébbalu ci yoonu Serigne Touba mooy loolu yàlla na ne fa qul fa in xaajuuka fa qul aslamtu wajhiya lillah wa man ittabaani man jox naa sama bopp yàlla ak képp ku ma topp ba pare nga bàyyi nit ñi ku joxul sa bop yàlla yàlla lool la la sant ku ko jox sa bop yàlla lool la la sant ning ko foogee yow nen lool moy jox yàlla sa bop ak ndax non la ko yàlla waxé borom bi ne waxul lil ladina utul kitab wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawalaw fa inna ma'alaykal balagh loolu lako yalla wax wallahu basirul bil abad ne ko lajal ñu jang lajal borom teeri ahlul kitab ak ñu jangul lajal ñu jang ak ñu jangul ne len ndax yeen jox ngeen seen bop seen borom buñ ko joxe seen borom ne len ñu ci njub ñu ci njub alquran day dafa jafé waaye buñ lànkee yow Muhammad jotal rek moo la war wax leen bañ dégg rek nga bàyyi wax leen bañ dégg rek ñu bàyyi nga bàyyi kon yoonu Serigne Touba mooy lan mooy jébbalu jébbalu googu nag ñu bari dafa am nuñ koy taawilee am nañ koy firi am nañ ko foogee waaye lii ma wax leen rek la kon jébbalu googu boo demee ci alxuraan doo ko fa fekk. jébbalu googu yàlla ko njëkk a wax yàlla ko njëkk a digle ba pare mu waxaat nañu ci alquran baada auzu billahi min ashaytan rajim wa man yarqab an millati ibrahim illa man safiha nafsuhu wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi alaaxirati la min alsalihin is qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين fala tamuutunna illa wa antum muslimun nee ndax Ibrahima bi ko yàlla ne jëlal sa bopp jox sa borom Ibrahima daf ko ne jël naa sama bopp jox sama borom Ibrahima moomu yamu ca de dafa dénk ay doomam ak i sëtam ne leen yéen itam ba leen faatu mukk te jëlu leen seen bopp jox seen borom kon jullit bi ak koo mën a àndal. moom bu ko jox sa bopp jox ko yàlla waaye moom nga koy seddaloo nag Cheikh Moussa kenn mosu dem ne ko jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira déedéet daf lay wax jébbalul nga ne aslamtu nafsi lillaahi rabbil alamin mu ñaanal la ba pare jox la baat yi ma la wax loolu kay lu lënt nekku ci waaye xam nga jamono bi jamono bi da ngay wax ki nga doon mba nga wax li nga doon mba nga wax li nga am marchandise mi nga am ñu ne du moomu am na mu muy nëbb loolu mandu wa di rawu ko omar dafa waxoon ne li feeñ danaa ko àtte mais li nëbb xawma ko li nëbb dama koy bàyyi yàlla loolu mooy mandu kon yoonu sëriñ tuba ci jébbalu yoonu njëbbal mooy loolu yoonu murit mooy loolu Ya naa leer na wala wala des naa leer leer na waaw bu leerul rek ngeen wax waaw alxuraan de du werante kenn mooy suñu dustour lépp lu ne na alxuraan la mbaa addis yonent bi la bàcca nga xam bu fekkee ka koy wax deful imaa la mooy dëngalu ko su ko kon ci yoonu serigne touba foofu laa ci yem ci li ma ci bëggoon a leeral ci wàll googu li may mujje nag bokkut ci thème bi de li may mujjee mën naa ko indi hmm? li ma bëgg a mujjee kon li ma bëgg a mujjee xam nga wax naa ko léegi ne xàmmee say noon dafa am solo day tax booy xeex nga xam boor booy moytu booy moytu booy làqu nga xam foo jëm ñun ahlu turukh lay waxat tey ñépp nag waxuma ak wa keur Cheikh Moussa kesse so ca bokke bu fekkon ci lamb lay ne ñeme na la sambu na ndënd bu fekkon ci lamb lay ne de ngeen lima wax waye ngeen xamne li tax ma wax ko moy wax dafa leer moy ci jamono biñ ni dafa bari mbooloo yu jóg di contre tasawuf waaye tubaab yi yëpp nasaraan yi yëpp nee nañ solution ci lislaam mooy tasawuf ñoom loolu la ñu wax xatta saoudien yi tey arabi saoudi tey nee nañ solution ci lislaam mooy tasawuf ñi may wax nag junjoon naa ko fi daaw jeeg muy ñi ñuy wax wahabiya dafa am lu bari lu ne ci seen gannaaw am luñ teg ci seen kanam liñ teg ci seen kanam nag la nit ñi gën a gis que li ci seen gannaaw ma bëgg a wax tuuti ci li ci seen gannaaw ngeen doog ko xam ñoom li ñu wuuf lan la ñu leen di wooye ba tey beneen tur bu ñu wax salafiya salafiya ñu ne ñoom li sahabatu yi doon def sahaba yi ridwanullahi alayhim doon def moom la ñuy def liñ doon wax moom lañuy ñuy wax sosuñ seen yoonu bopp ma bëgg tënk ci ñoom ñooy ñi nga xam ne loo def ci réew mi ñu ne bidaa la ñooy ñiy tabax jumaay jàkkaay benn soroor ñooy ñi nga xam ne seen ndimbal duñ ko dugal lu dul ci seen bopp doo fi gis benn daaray alxuraan joo xam ne ku tënku ci tariixa moo ca nekk ñu dimbale la duñ ko def seen zakkaat duñ ko jox kenn ku tënku ci tariixa waaye nag ñu ngi naxee nit ñi ay jumaa ak i jàkk waaye dama leen bëgg a wax seen kilifa gi mooy kan dëkkul fii fépp ma nga dëkk fuñ naan na jat Arabie Saoudi bi nga xam ne moo nekkoon seen baas génnee nañ leen fa daawu jeeg ñaari at ren génnee nañ leen fa bañ jeex fa takk ajug ren gii ñoom ubbee nañ ne imaam Aysawi mi doon jiite te ren Arafat ji ne mboolem ku ko roy ñoom ñi may wax nii ñoo ko ubbee na mboolem ku ko roy amula julli te kooku mooy imaam bi jiite Arafat ci ajug ren gi yéen a may dégg parce que bun Salman moo ko fal imaam folli na ñoom imaam yañ soxla woon folli seen borom xam-xam ya tax ànduñu ci àndatuñu ak ku mu fal. loolu lañu ñu ubbee ren ci Arafat ñoom ñooy wax bidaa bidaa bidaa ma ñëw ci bidaa yooyu ma indi ci tuuti wax leen ne azanu zanin awalan lay indi awalan azanu zanin ahdasahu banu umayya jàngkat yi xam nañ loolu demal ci jullig juma nodd gu njëkk gi moom lañ yonent bi daan def alayhi salaatu wasalaam moom moo moo fi nekkoon gannaaw yonent bi lañuy ñuy def noddug ñaareel noddug ñaareel googu Ousmane Ben Affan moo ko sos bidaa nga kontu leen benn bidaa bidaa mooy lu ñu def ci diine ji te yonent bi daana ko def digliwu ko defuñ ko ci kanamam mu saxal ko loolu mooy bidaa te lii bi ko Ousmane di digle yonent bi nekku fi te ñu ngi koy def ba tey noddug ñaareel googu Ousmane mu ne lislaam yaatu na dëkk bi rëy na léegi da leen nodd noddu ñaareel te mooy une heure demi ngeen nodd muy zawal ñësori dégg ko buñ préparé balaa ñoo agsi fekk nodd gu mujj gi ñu war koo nodd mooy bi imam toogee ci minbar bi googu nodd baaxul ñoom ñu ne bidan la waaye ñu ngi koy def de naafila tarawih bi jamaatin fi lmasjid faalahu nabi alayhi salatu wasalam salasa marra summa tarakahu yonent bi jullig naafile weeru koor ci jàkka ci mbooloo ñetti yoon la ko def bàyyi ko Ababakar ñëw defu ko Omar ñëw romb saxaaba yi ci jàkka ji kenn ku na taxaw sa baraw bopp di julli mu ne ñii de su ma leen dajale woon ñu naafile ci gannaaw kenn dana gën a rafet mu woo ah, mu woo Ubay bun Kaab mi mënoon a jàng ne ko de leen jiite ngeen def naafile mi koku di len jiite ñuy def naafile bi Omar génnaat ci ëlëk sa romb len ñu def mbolo taxaw ci gannaawam muy jang jang mu neex Omar ne ni'mat bid'atu hazihi lol du bid'a Omar ne bid'a bi ma sos ak a baax loolu kon sosuñ ko ah ñaar boobu Omar la ko sos te ñu ngi koy def batay te ñom ñu koy def de ñettel bi mooy bind xutba di xutba ci jumaa ji taxaw ci minbar bi jàkkaarloog mbooloo mi téye këyit kayit di wax yonent bi daanu ko def saaba yi daanuñ ko def waaye ñoom ñu ngi koy def loolu bidaa la ne nañ loolu baaxul te ñu ngi koy def xaj aji makka ba pare war war waroo waroo aji makka waroo gëlëm yonent bi mosu koo def ndax léegi nit ñaa ngi koy def ñu ngi koy def kooku bidaa la te ñoom defuñu ko sol pantalon sol caaya sol awsa bidaa la yonent bi mosu koo def ndirax laay la daan def loolu lañ jàng ndirax laay al izaar moom la daan def ñoom ñu ngi koy def faju ci jamono garabi jamono bii faju ci yonent bi daan ko def yonent bi lim daan fajo moy gàjj nampatal liñ naan sina moy lay dur eskir muy ciep yonent bi yoy la daan fajo garab yoyu ñom dañ ko contre na yoy kenn du ko fajoo ak ñaas ñaas sa yaram bi Cheikh musa mom la daan fajee abdullah ibn subair bint as bun Asma bint Abi Bakar yonent bi dafa nàmpatal yaramam ba pare deret ji mu jox ko ne ko demal tuur ko Abdullah ibn Zubayr génn naan ko kookaa xam kan mooy rasulullah alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwaatee yonent bi ne ko Abdullah ana deret ja mu ne ko tuur naa yóbbu naa ko mu ne ko ana deret ja mu ko yóbbu naa mu ne ko Abdullah xëy na da nga koo naan de mu ne ko dema ko naan kay yonent bi ree ne ko waa lu tax nga def loolu waxu ko ne waxu ko leneen lu dul loolu gis nga boo xamul nitu yàlla nangul ne xamoo ko rek doo ca mën a jëriñu waaye xoolal Abdoulaye nu Subayrul xam ngeen deret sobe la deret ju puufu sobe la deretu nit dafa xaraama lekk Abdoulaye ibnu Subayru dafa naan deretu yoon bi te yonent bi wax ko xaraam na kookaa xam kan mooy ko kookaa xam kan mooy nitu yàlla kon ñoom yooyu dañ koo tere beneen bi mooy li ñuy wax musaabaqaat fil quraan fil xefs wal qiraa loolu ñoo ko fi xewal maanaa concours ci njàngum alquran ku jël pee nga am kado ku jël nangam léegi xam ngeen mondial mondialisa mondialisé nañ ko adduna yëpp a ngi koy def fi mu ne ah est ce que daan nañ ko def ci jamono yonent bi alayhi salaam la bidaa la te ñoom ñoo ci jiitu léegi nag seen lay laa lay indil juróom-ñaari bidaa yooyu laa leen jox am na yeneen yoo xam ne yëpp ñoom nee nañ bidaa la te ñu koy def xataa topp sëriñ sax nee nañ dafa xaraam waaye ma jox la yow jàngkat bi dama ci soo dama ci alxuraan nga dem ci suratul kahfi nga ubbi wa isqaala Muusa li fataahu laa abrahu xataa abluqa majma al bahrayni awam di xoqba topp ko ba ca kanam da fekk mu naan ko dégg hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda qaala sa lan maa ma'i sabra Moussa dox na ba fekk xadir fa mu toog Moussa ne ko ndax du ma topp pour nga xamal ma ci li la yàlla xamal dara xadir ne ko yow mënoo maa topp parce que mënoo muñ diggante sëriñ ak taalibe ngoog kum réer dalal ci alxuraan da nga fekk Moussa doon taalibe xadir te Moussa deb yónent loolu yàlla ñu ko nettali sen lay nak moy iyyakum wal muhdasat fa inna kull muhdasatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fi nar lol moy sen lay ñu ne moytu len bid'a yi bid'a bu nek luñu sos la te lépp luñu sos dafa réer la te gep ak réer safara la jëm kon ki yor réer ga safara la jëm lol moy sen warat waye nak njàng mi istilaaxaat da cee baax jàng lu ñuy wax mustalaxul xadiis téere bu boroom xam-xam yi di nattee araab di ko nattee ñetti boroom xam-xam bind ko imaam Axdar yi ca xareer yi bokku ca ñu nekkoon boroom xam-xam seen jamono te bañ bindee téere ba boroom xam-xami jamono ba nangu nañ ko mujtahid yi nangu nañ ko téere boobam mooy analyse xeeti wax yi léegi déglu leen addis bi ak bidaa yi ma wax nii bidaa yi ma wax nii ku ci mucc ci senegal ak Arabie Saoudi ku ci mucc wax leen ma ku ci mucc rek ñoom ñi koy contre sax ñu ngi koy def am déet léegi nag ñu ne bépp bidaa lu ñu sos la lépp luñ ñu sos réer la bépp réer safara waaw biddaa yi ma wax lii nag te ñun ñu nekk ci ñoom ñu nekk ci fu ñu koy féetale moo bopp moo tax du niñ ko firee kullu dafa am ñaar dafa am kulliya am kullu ñëw na ci alxuraan tudammiru kulla shay'in fa asbahat laa tara illa masakinaha gis nga ko de laa tara illa masakinaha de tudamiru kulla shay'in ngelaw li ñëw na bombarde lépp lu fa des dama leen di laaj lu fa des ñëw na bombarde lépp yàq lépp lu fa des ah alxuraan wax de lu fa des mu ne nag mujj na boo xëyee dëkk waaye rek ngay gis kon amul lu fa des am na lu fa des kon kullu ndeke ñëwul pour jëlee fi lépp kulliya mooy ñëw pour yóbbu lépp waaye kullu lenn lay jël zul yële ni dafa bokk ak yonent benn julli ñu julli julli ñeenti rakka yonent bi def ko ñaari rakka sul yële ni ne ko a axasurati salaatu am na siite yaa rasulullah julli gi da koo gàttal wala dangaa fàtte ne ñeenti rakka la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kullu daaka lam yaqa Monoko ne ah, badu ah kay baadu zaaka qad yaqa waaw ndax yow da nga fàtte julli ñent rak la da nga def ko ñaar rak da nga fàtte wala da fuk dang koy gàttal yonent bi ne ko wu mako gattal mako ah, kay ci ben amna ci bi jogaat indi ñaari rakka daal sujud kon lu ci nekkon fàtte te kullu la léegi nag kullu gii ci kullu bidaa tin nga ne lépp bidaa ak kullu gii yonent bi ne ko kullu zaka mu ne lépp yooyu yëpp benn amu ci ñaari kulli yii bii lenn la am la yonent bi jog indi ñaari rakka def ñaari sujjóot kullu googu ak kullu gële ñaari kulli yi noo leen di jëfandikoo loolu la mantix di jàngale moo tax hadis dajé ak hadith bi nga bëgg rek jël ko né dang koy waraté da ngay sét hadith ba ba ko def taarut moy ba ko gaar nga xol ñaari wax yi ségg ko ci mantix mu wax la na nii ngay yoon bi ngay jël motax borom xam-xam yépp ci rasulullah ba amul benn borom xam-xam bu mos bind ne bidaa yi bidaa yi yëpp benn baaxu ci ñom rek ño taxaw né bidaa yi ben baxu ci waye man nañ ko wax parce que seen kilifa gi mo def li may wax lool la. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am saxaaba bu ñëw wax ak moom daldi di ko daal diisoo ak moom sëgg wax wax ba pare daal di siggi yonent bi moom daal di wax ci kaw li wax mooy lii daf ko ne ndeke waaje da ko ne ah diw de naafiq la parce que diw am na yu muy def yoo xam ne diine ji da koo tere ndax duñ ko rey yonent bi ne ko alaysa yonent bi ne ko alaysa yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa qaala balaa waaja ne ko wala shahadatan lahu fa qaala alaysa yusalli qaala balaa wala salaata lahu fa qaala sallallahu alaihi wasallam sallam ulaika alladina nahani allahu anhum dégg déglu leen addis boobu ak li may wax mooy suma mujj waxtaan wi yonent benn waaye dafa ñëw déy siggi yonent bi na ko xanaa ki ngay wax nekkul di seede ne laa ilaha illallah muhammad yonent yàlla mu ne ko ahankay mu ne ko xanaa nekkul di julli mu ne ko ahankay waaye nag seedeem yi du dëgg ci moom jullim gi du dëgg ci moom yonent bi ne ko ñooñu la ma yàlla wax ne baleen rey gis nga képp ko wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah bu jihaad jógee dañ la war a teggi ku la rey bakkaaru ah Muhammad bin Abdou Wahab nak moy kilifa ñi ma len wax ni degul len nak lim ray ci nit moom ak dekk yi mu don xare tuddé ko xare te ñooñu nek ci dinul islam <coughs> pour ngeen xam xam nga nit du càggan da ngay ñew di wax rek mu melni da nga am koy contre wala dafa am loy wedd koy wedd dañu bëgg wax l'islam ca yonent ba nan la doon doxee ak tey ñenn ñi niñ ko gisee ñoom ñu ngi ñu ngi feeñ moom Muhammad bun Abdul Wahab moomu mu ngi feeñ euh, maanaam yëngu-yëngum yi mu ngi ko commencé 1818 ci la commencé yëngu-yëngum yooyu kon xam ngeen yàggul fekk na lislaam am ñetti téeméeri at am maanaam junney at ak témèr ak do top sétal de l'islam junney at ak témèr ak lu top yow nga dogo ñew né li ci gannaaw wëru yow fi nga tambalé moy wër té yow li ci mom nga wax né mom ngay roy est-ce que lool mun naa nit day démé xélam mu duggu fu wax fa la njëkk def xareem dugg medinatul munawara dugg makka dugg iraq dugg koofa dugg basura dem sham ba dugg ci afrique fii di rey rek dëkk bu mu dem fekk na fa jàkk fekk fay juma fekk fay daara fekk fay kilifa diina waaye kum gis nga ngëb kurus mu ne bidaa yu nga kum gis nga jox nit loxo di ko ormal mu ne bidaa yu nga rey rek ñooñu la doon rey tuddee ko ay xare ñaar fukki at ak juróom-ñeent ma ngi rey ci dëkk yooyu te ay jullit lay rey te ne moom day jihaat ci yoonu yàlla te dëkk bu mu dem fekk na fa yii ma leen wax nii parce que yooyu bu ngeen bu ngeen delloo ci histoire ul islam ci la yonent beeg saxaaba yi doon doon jihaaree na Medinatul Munawara kan moo fay dugg ñaar téeméeri boroom alal lañ fa rey jël seen alal ja nguuroo ko dugg Irak dugg Basura dugg Koofa dem Najaf dugg ah, ah, ah, fii Sham di rey rek seen kilifa gi di Muhammad bun Abdul Wahab moo doon def loolu. kooku mooy moo fi indi tarixa salafiya bis nekk senegal gii ñuy tabax ay juma jumaa yi benn soror yooyu moo tax ñi leen xam dëkk buñ dem buñ ko fa bëggee tabax dañuy bañ parce que xam nañ seen kilifa gi lan la doon dund ñoo kooku bu doon dimbale ay nit du rey ñooña parce que nit ki soo ne da nga koy dimbale ba pare ñëw rey ko noo koy dimbalee ti lan moo ko daloon lan moo ko daloon dafa gis li nitu yàlla yi gis te mënu koo dindi mu foog ne jaasi mooy solution te jaasi dégg ngeen addis bi ma wax léegi nit buy julli seede ne yàlla mooy yàlla kenn la Muhammad yonent bi yàlla la soo ko rayee yonent bi na rey nga jullit ñooñu la yonent bi noonu bu leen kenn rey. suñuy jaar jaar daal dana wax ni ko xaritoon jar seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.